kàddu bi nag dama koo jël ci mouvement FDD di front de la défense défense de la démocratie euh, ma bokk ko ak Mame Birame Waaj ak euh, Serigne Saliou Guèye ak Babacar Mboub ak euh, mam ñu mu tuddati Salma Ibrahima Fall ak Maymouna Bousso ñoom ñooñu lañ ko bokkal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen euh, li ñu tax a jóg nag mouvement boobu bëri na ñuy wax sax mouvement journaliste la mais du mouvement boo xam ne journaliste yi rek la parce que journaliste yi rek moomuñu mouvement boobu parce que man mii maa ngi ci biir te du ma journaliste ak ñoom Babacar Mbow bëri na nag ay journaliste yu ci nekk mais li tax ñu jóg rek mooy ñun ay nit lañ ñoo xam ne ñu ci ëpp xay na xam nañ ñu ci micro yi ñuy wax mais réew bi dafa toll foo xam ne euh, kenn ku nekk da bu fekkee da nekkoon ci ay bureau wala sa néeg wala sa place réew mi dafa toll foo xam ne ku nekk da ngay jóg fa nga nekkoon nga ñëw taxaw ci pénc mi ñu ànd xeex li ñuy xeex pour Sénégal mën a continuer di. nekk fa mu nekkoon loolu nag moo tax FDD sosu donc ñun ñu ci nekk ñëpp loolu rek moo ñu yëkkati ñu ciy woo sénégalais yëpp samedi am nañ manifestation terrain Grand Yoff euh, à 15 heures mooy nekk commencement bi ñu ngi ciy invité euh, leader politique yëpp candidats yi ak. Euh, njiitu mouvement yi fi nekk yëpp ak journaliste yëpp euh, parce que tey jii sax dañoo amoon conférence de presse mais comme dañu yëg ni ñii dañuy def te yaakaar naa ne boole doole yi ci lañu war a toll mais kenn ku nekk warul beru fële di def sa yëfu bopp nii nga xamee ne candidat yi dañu boole seen bopp euh, noonu la mouvement yëpp war a boole seen bopp ba ku woote ñëpp ñu ànd ak yow pour li ngay def mën a réussir parce que li ñu soxla du ndamu benn nit du ndamu ñaari nit mais ndamul <coughs> réew mi lépp la euh, li nga xam ne dinaa ko si waxaat rek euh, mooy wax ak sénégalais yi parce que tey mën nañ woote minute manifestation kum neex nga toog mën nañ woote ville morte nga génn dem ne bokkuma ci waaye démb ak bërki démb rek ku dem Guinée wil morto am na ko par force parce que nit ñi sécurité bu ñu génnee sax dem liggéey yi amatuñu ko boo demee di liggéey sax li ngay liggéey mënatut a tegu ci dara parce que amuñu li ñuy wax état comme nag ñun leader yi ñu yàlla jox ay visionnaire lañ xam nañ ne kat fii Macky Sall jëm ak réew mi nit dina fi bëgg a génn këram du ñemee génn nit dina fi bëgg a liggéey du mën a liggéey nit dina jënd conteneur indi ko fii ci port bi dootu ko gisati dara dara du ko ci fekk laataa loolu di am nag. dañuy boole suñ doole ñun senegale yi ànd xeex lii nga xam ne moom la Macky Sall di woote ci réew mi pour mu jóge fi li nga xam ne moom lay laay dolliwaat loolu laay wax sénégalais yi xeex bi nag yàlla def na ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais dafa am ñoo xam ne li ñu wax akarabul awla ay leader yoo xam ne ñoom ñooy candidats yi muy dix-neuf personnes kenn ci ñoom mooy nekk président Sénégal incha allah ñooñu nag comme nangu nañoo boole suñ bopp seen bopp ñun militants yi nga xam ne dañu bokk ci parti yi ak ñi nga xam ne ay sympathisants lañ ak ku mën a doon il faut ñu booloo ñun ci suñ bopp comme ni leader yi boole woo parce que tey benn leader rek bu génnoon rek day may doole Macky bu ñu dajee fenn di woote manifestation wala di woote meeting ñu naan kii moo wax lii kii moo wax lii sama leader ñii di yuuxu kii ñii di yuuxu kee kon leader yi ñi ngi defar mais militants yi ñi ngi yàq il faut ñu bàyyi xel loolu ku rusuta ñëw ànd ak sa leader waroo rus jox ko gëdd gëdd bi nga jox sa leader donc loolu laay wax leader yi tamit ëpp ma leen xam-xam gënuma leen a xam réew mi mais dinaa leen baaka dara mooy ngeen gën a boole seen bopp Macky Sall kum ci def visite biir kër lànkal kum ci woo public lànkal parce que li mu bëgg mooy dina def le tout pour pour tàqale leen loolu nag yéen a koy bañal seen bopp pour gën ñoo may doole ñun ñu topp seen ginnaaw parce que man euh, euh, dialogue bii mu doon woote bari ki démb defe naa ne lu nekk lu gën a nekk yàpp Sénégal amul mooy nga am sa ñaari soxna problème am ci kër gi nga ne pour ñu régler problème bi dañuy dem jëli ex yëpp ñu ñëw bokk régler problème loolu la leen dëggoon a def ngeen xam ko lànk moom nag jaral na ko nag bëgg na réunion ba faral ko mu bàyyi bi yi dem di ñoo ex ya man nag boo réunion ex yi ba bi boo ñëwee noo koy doxale ci biir kër gi laa xamul li ci des mooy lii muy def lépp bu leen mës a dugal seen bopp ci ne Macky Sall day dem le 2 avril li muy wax naan mi ngi koy timit mi ngi koy wax ba muy wër réew mi naan damay def cinq ans du ma def sept ans est-ce que ba mu jotee def na ko lan la Macky Sall mës a dig askanu Sénégal dalee ko jot mu respecté ko le 2 avril Macky Sall dafa bëgg xool ba xam la trois bu xëyee nan la dëkk bii mel su nooyee day continuer toog ci réew mi jaay doole nit ñi xam nga ne pardon benn baax bu demee ba naan daaka ji mooy tax mënumaa jàpp man euh, élection yi waaw bërki démb ban naa moo fekk yi daaka mu ne dagg leen daaka ji parce que corona dafay ñëw du Macky Sall kon bu demee bay taafantaloo daaka tey xam ngeen ne dafa am lu nekk ci boppam te waxu ko Macky Sall foo mën a fi gàmmu Tiwaawoon foo mu fi daaka foo mu fi màggal yi foo mu fi ngénte yi ba sax aaye fi nit ñi ñu suul seen i seeni seen i mbokk ku am ku mën a def loolu aw askan nag soo bëggee organiser ay élection du la tëb na bàyyi caaxaan yi te mu respecté démocratie Sénégal wasalaamualeykum wa rahmatullah